I'm like, I get mountain. Thank you.

voilà kon ñu noonu président bàyyi ko na fële ci Darou Marnane ñu di dem